effectivement comme niñ ko topé sank ba légui ñu ngi tay ci fi nga xamné mom may intersection bi nga xamné mom mo nek euh, ci marché Thiaroye bi ak li nga xamné mom may euh, garage Kalandoo yi euh souvent dañuy gis que ni euh, même bu fekkul sax taw même bu fekkul aussi tamit problème bi nga xamné mom moom mooy problème tali yi nga xamné dafa bon dañuy gis ne toujours que ni nit ñi dañuy ñëw occuper li nga xamné mom moy talé bi ben occupation bo xamné dafa anarchique occupation bo xamné vraiment donc djéggina dayo trop bu défé donc euh, ñom ñu fi jaay euh, ñu ngi nekk ci buntu commune bi nga xamné aussi tamit mom moy commune du Rails Nord mais dañuy gis que ni bu baax baax dafa am donc li nga xamné moy moy euh, manque de sérieux bo xamné dafa am envers les populations parce que tamit fi ma taxaw ni di wax ak yeen da ngeen di gis que ni toujours embouteillage bu dense dafa am donc embouteillage bi li koy provoquer mom moy lan Euh, ni ma taxawee ni donc si sama loxo ndeyjoor da ngeen di gis que ni euh, am na garage boo xam ne dañoo ñëw ba occupé donc li nga xam ne moom mooy euh, tali bi su weesoo loolu tamit ci côté càmmoñ bi da ngeen di gis que ni toujours ñu fi teg ay table donc di jaay li nga xam ne moom mooy ay légumes donc bu ma nee légumes donc wax naa fait divers yëpp mu nekk tamit contrainte boo xam ne tey jii andi na jafe-jafe bu baax a baax ci li nga xam ne moom mooy diggante dem beeg ak dëkk bi ci dong nga xam ne moom mooy post Thiaroye pour dem Thiaroye wala boog ñu war a jógee pour dem li nga xam ne moom mooy post Thiaroye